ñi nga xam ne ñoo yi dañoo am lu leen naqari lool ndax nee nañu jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund lool la bëgg mu dakk ak nag chantier yi nga xam ne commencé woon nañ ko fa ba léegi ni yéegu la moo tax étudiants yi sigi coor yi démb dañoo wax ne 48 heures yoo xam ne moom la gerew waaye nag ci biir gerew boobi maanaam dañuy lekk te duñu fay dara loolee étudiants yi di ko tuddee ngénte tubaab yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na bu na si gaañu gaañu ci étudiants yi yéen a kaay gi nee na Assane Ndour mi nga xam ne mooy coordonnateur étudiants yu Alioune Diop moom nii ki démb ab grenade lacrymogène la ñu ko dóor ci biir bi yàlla baax yéen a kaay gi di mi ko di cee nee na du université bu Ziguinchor ak bu Alioune Diop ba sa Bambey rek ndax étudiants yi nga xam ne ñoo nekk ci université virtuelle yu Sénégal ñoom tim jamono ji ñoo ngi ci ab gréwu xiifala yéen a kaay gi di Les Échos ak Vox Populi ak L'As ñu xëy fekk fa njiitu réew mi di président Macky Sall ci interview bi nga xam ne def na ko ak waa RFI ak waa France di wax ci Sénégal wax na ci lu jëm ci ñett ñetteelu mandat bi wax na ci indiwaat poste premier ministre wax na ci événement mars yi nga xam ne moo amoon ci réew mi nag ñu daal leen di amnistie moom njiit wax ne poste premier ministre ginnaaw élection locale yi danañu ko indiwaat waaye nag lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat bi loolee jamono ci te wax si bu jotee dinaa ci wax moom njiit réew mi nee na événement mars yi nga xam ne moo fexe woon loole du ñu nanguwaat mu am ci réew mi ndax ñenn du ñu jóg bëgg a taal réew mi ba ko laajee lu jëm ci amnistie Karim Wade ak Khalifa Sall la nee na loolee maanaam dàqu ko ma ngi ci xel mi te nag boobaa dañuy xool ana nan la ñu koy defee yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu Serigne Mbaye Thiam mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum ndox mi ci Sénégal ni ki ma ngi woon ci assemblée nationale ngir nag ñu koy natal ab budget ma waaye nag Serigne Mbaye Thiam yekk nañu ko musiba ak mbelengana ñenn ci député yi wax nañu ne Serigne Mbaye Thiam dafa tële ci ndox mi nga xam ne moom la ñu ko dénk ndax Sénégal yi jamono ji sonn nañu ba mara détaillé ndox mi nga xam ne qualité bi baaxul waaye nag yi cher na ba jéggi dayo Serigne Mbaye li mu waxoon ci assainissement bi Fourass Dali xëddéena ci biir réew mi bëri na ñoo xam ne ba léegi ni amaguñu ndox maanaam accès à l'eau jafe na lool ci Sénégal yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy diñu xibaara naan ñu Serigne Mbaye Thiam ni ki démb ci Assemblée nationale daat nay wax ne factures yu cher yi ak ñàkkum ndox geek maanaam qualité ndox mu baaxul mi loole na sàkku nañ ñu daal di koy audité maanaam ñu daal di koy càmbara yéen kaay gi di L'Observateur xëy diñu xibaara naan ñu am na lu toll si yoo xam ne càmbar nañ lekk gi nga xam ne moom la ñuy lekk ci réew mi maanaam suñu plateau añ yi bi nee na expert yi nee nañu xorom si nga xam ne moom la lekk bay boo ñu def ci ndànk ndax bëri na ay danger yoo xam ne am na ci maanaam li amba desal Sénégal ni ñuy lekkee danger yi bëri na yéen kaay gi di laas xëy di ñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum guerre corruption marché public loolee jamono ji yëngal na lool société nationale de recouvrement yéen kaay gi ne nag ku ñuy wax maître Bassirou Ngom moo jiite société boobee nag waaye jamono ji maanaam nag coow daan na koy topp ndax dafa am benn homme d'affaires boo xam ne Pape Babacar Faye la tudd da koo joxoon koo joxoon commission da koo neexale woon waaye nag moom maître Bassirou Ngom mi nga xam ne moo jiite société nationale de recouvrement respecté wul engagement yi nga xam ne jëloon na ko ndax da koo waxoon ne kat di nga gagné marché bi gagnéwul marché bi loolee moo tax homme d'affaires bi jamono ji daal di koy topp ngir nag mu daal di koy delloo xaalisam yéen kaay gi di réew ko di jenxëy di ñu xibaar naan ñu Ayda Mbaye kookee ni ki démb àtte nañu ko ca tribunalum Ndakaaru waaye li mu def moo garaaw moom nag dafa dëbb li njaa xam ne mooy baay ji jël ci baay ji lu toll ci 40 millions ci compte bancaire baay ji fa la manqué 40 millions bëggoon na ne na menteñ bëgg a dem Canada moom ak jëkkëram ngir nag daal di fay noos yéen a gi ne na atte nañu ko tëj nañ ko toll si juróom benn weeri kaso yéen a kaay gi ne na moom Aïda Mbaye moom nag quarante millions yi bi mu ko ronxee ci compte bancaire baay ji jël na si lu toll si juróom-ñaar ci ay millions ngir nag lijjanti ci ab visa ab Canada ngir mën a ànd ak jëkkër ji tukkee waaye nag jënd na ci tamit li nga xam ne mooy oto journal bi nee na daal noos gu rëy la a kaay ñu xibaar naan ñu ci conseil des ministres bi njiitu ne fan yi ñu nemmeeku ci réew loolee loole la bëgg ñu daal di koy saafara nee na nag lu jëm ci wàllum nawetaan gi loole il faut ñu organiser ko waat yéene kaay gi di direct news xëy duñu xibaar naan ñu Sénégal pays de la teranga la wala pays de la violence loolee ab laaj la boo xam ne waa direct news ñoo xëy di ko laaj yéene kaay gi di sunu làmb xëy ñu xibaar naan ñu Siteu Papa Sow mi nga xam ne arène nationale lañ ko tëggee woon coow leen coobay violence bi mel ni tulleeg ndax wóor na ñu tëggee fa combat Modou Lo Ama Baldé société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon doon may seen revue de presse